bi ko euh, Macky Sall defoo defee fii mu recevoir euh, Marine Le Pen euh, gis nañu Élysée gis-gis ñu ci am ah, amoon na ay ñagas ñagas ci seen diggante ak léegi la France l'Élysée hmm. ñoom mën nañu recevoir Amadou en pleine campagne wala hmm. muy mu koo xam ne c'est un candidat déclaré hmm. jëm ci élection présidentielle ñoom ñu recevoir ko fii nii seq ak ñoom waxtaan xamuñu lu ñu waxtaanee doonte am na ci yenn point yoo xam ni génne nañu léegi ñoom mën na ci recevoir te ni ñoom du poser benn problème Ousmane Sonko. moo leen mais mais Amadou Ba boobu il était premier ministre ah. d' accord. oui d' accord il était premier ministre. oui dafa demoon en tant que premier ministre. nekk aussi candidat déclaré. Oh, d' accord mais mais mais mais un candidat déclaré. si man dama gëm ni sax loolu dañ ko mbubboo <laughs> rek. mais dañ ko recevoir dañ ko recevoir en tant que candidat. Mhm. déclaré. Mhm. te ñoom leer nañu leer na leen ni kii nii il sera candidat ñu recevoir ko. Mhm. seq ak moom waxtaan. loolu il faut que mu leer. léegi ñoom ñu def ko léegi ñu garaawul du déranger kenn parce que ñoom la. Ousmane Sonko rappelé leen ko ci euh, discours bi mu tenir devant Mélenchon ñi leen jamono wi nekk ci xat-xat Macky Sall di def lu ko neex. Hmm. ay bakkan di ci faatu. ñoom ñu jël président Macky Sall ko tam tamal ko di ko aayoo nen ne. Hmm. ba pare ni bu mu déranger kenn. léegi Ousmane Sonko génn en toute liberté. de recevoir Mélenchon parce que dañu bokk yenn ci ay gis-gis ñu def seen conférence conjointe hmm. léegi ñoom ñu bëgg tëb di dal ni voilà def leen déranger mën na indi ñagas ñagas euh, ci suñu diggante ak ñoom ak Sénégal. mais ñoom il se il se moque de qui ñoom ñooy kan la la France ba tax ba jàpp ni ñun dañu war a wéy saa su di dox ak di jaamu ñoom ci seen i soxla. ñoom nu mu leen neexee nu mu leen sentir ñu defee ko noonu mais ñun bu ñu ko bëggee def faaw ñu bàyyi leen ci xel gis nga loolu. mooy moo fi jeex te dafay dakk moo Ousmane Sonko man j'aime bien xam nga maa ngi wax ma ni Ousmane Sonko de dëgg-dëgg nag maam woo Mélenchon bi def ko doon def rek pour ñaawal ak fayu ci li ko li ko li ko Macron def la fois parce que lii nii même su ko waxul lii nii bokk na ci li gën a naqari Macron parce que man gis parce que fi mu dóor sax moo baax gisuma pertinence su Mélenchon du ñëw Sénégal franchement amuñu ci fi gën a metti dóor moom fayu la rek dóor fayu la rek. moo tax ma yi ñu bari ñu ngi tëb di dal di attardé wu ci. Hmm. mbiru homosexualité bi gars yi wax góor jigéen gi. Hmm. mais le vrai vrai pour man li nga xam ne moom moo gën a sax waral ndaje bi dëgg-dëgg. Hmm. Sénégal yu bëree bëri décrypté wuñ message boobu noonu. bi ci Ousmane Sonko bi ci Ousmane Sonko jaarale dëgg te lii pour man c'est quelque boo xam ni. woo sa euh, saaga la. waaw yëkkati kàddu yu la neex. wax la toog jàpp boppam. waaw loolu pour man. sa wujj woo sa wujj ba mu ñëw fii <laughs> ñu ñu toogee la <laughs> di la jaabaat di la waxtaane di la jaabaat di la xas Ousmane Sonko ce qu'il ce qu'il a dit est clair moom nee dañu bëgg beneen relation boo xam ni mooy dox seen diggante ak France bi nga xam ne ànd ak ñun ak moom mm-hmm. euh, c'est de longue histoire mm-hmm. dañu bëgg beneen relation boo xam ni mm-hmm. dafay nekk gagnant gagnant kenn ku ne respecter sa morom win win win yàgg na ko wax. waaw loolu léegi nag euh, bi ci jiitu mooy respect bi d' abord France ñoom mënuñu am fermeté ci seen wàllum polygamie mm-hmm. ni duñ ko fa toléré pare euh, dikk ñoom bëgg ñu imposer yeneen ak yeneen euh, loolu ñun duñu ko nag on va pas mm-hmm. l' accepter mm-hmm. moo tax man dama jàpp ni Ousmane Sonko vraiment c' est un milite boo xam ni saa su ne mi ngi woon que ni moom amul benn complexe muy yaras amul benn complexe boo xam ni am na ko ci ñi nga xam ni ñoom ñoo di la France ñi nga xam <coughs> xamante fii nii ñoom dañ leen a jàppe comme ay demi ay yàlla ba tax fi mu ne nii lépp lu France def wala mu wax rek ñu jàpp ñu loolu moom moo baax alors que yëf yi demewul noonu nous sommes des Sénégalais yàlla daf ñu jox xel jox leen xel jox ñu capacité comme ñoom ñu war ko exploiter léegi nag pour quoi ñu war di accepter de soumettre saa su ne ci la France bi nga xam ne ma Mahfouz moom euh, su ko su moom daal li mu ñu yéene mooy di ñu jox sarax rek mel loolu nag dafa bari euh, ci société bi sax waxuma la France mais dafa bari am na ñoo xam ne dañuy jël nit di mu ne ñu ngi koy dimbali alors ñoom dañuy dimbali. ñooy dimbali ko nit ñooy ah, ñooy ñu ngi dañuy maanaam dañuy jaar ci yow pour am li ñu li ñu bëgg. merci beaucoup man loolu j'en ai dama ci am ay ay ay expérience yu baree baree bari yàlla xam ko. Mm. yow mi nga xam ne sax yow la ñuy dimbali ko Cheikh Mahfouz boo génnee waxu nit ñu mm-hmm. xam réellement ce qui se passe. ñu am ci suuf ñun nag euh, Sénégal yi baree bari gis-gis boobu la ñu am ci France jàpp ni Sénégal ak. li mu téye ci suñu koom-koom lu bare bari entreprise yu bari yu am fii bis bu ñu amee moom problème jafe-jafe hmm. suñu koom-koom mën na ko yëg loolu ma leen wax ni dara du ci dëgg France bu ñu bàyyi woon tey sax ñun tey xam nga des nga génn ak benn xale boo xam ni wala nga takk jabar joo xam ni koy fase a a délli hmm. hmm. <laughs> des am ñu ñu bis bu dafay ba Sénégal ba amutu fi dara dañuy xëy di gën a avancé mais foofu laa doon bëgg a ñëw lu am conséquence euh, ci euh, ci Sénégal ci économie les entreprises françaises euh, bëri nañu fii on parle plus de 200 euh, jàpp nga ni tey bu ñu amee rupture jafe-jafe commencé am ci entre la la France et le Sénégal euh, du ñu am ay conséquence sur le plan économique. xam nga booy soogee bàyyi technique yi nag Cheikh Mahfouz. faaw mu am tuuti jeexital. Mhm. loolu ñun nous le savons tous maanaam booy surtout koo xam ni. ñu nag France dafa yàgg ma foos mm-hmm. bu ñuy bu ñu xëyoon xëy rek tipp suñu diggante ñun ak moom mm-hmm. te Ousmane Sonko moo tax gis nga ñoom seen intelligence politique sax ma daf ma dépassé ñoom gis nga leen ba toogee ba léegi ñu il se comporte comme si ñoom amuñu benn problème ak français yi ak yenn ci entreprise seen doxalin am mm-hmm. pourtant ak ak ñu taxaw pour indi coppite gi yenn mais ils le font intelligemment maanaam daf ci laaj loo xam ni dafa ci am loo xam ni Cheikh Mahfouz dafa laaj benn temps bi mais aussi dafa laaj nga càmbar ba tey yi boo demee ba ci jël décision du gaañ yenn gaañ yi am na yenn yenn yenn yenn séparation yoo xam ne su amee Cheikh moom par force ci début bi il faut que tey du ñun kese de France aussi daf ko yëg par la force ñu ne France bu ñu bàyyi woon nii bu ñu xëyoon xëy tàgg suñu diggante ñu ak moom dèjà ñoom ñi ngi fi seen base militaire ñu ngi fi 350 soldats fii ci Sénégal 350 soldats la indi fii euh, ci ndakaaru gii nii teg leen fi ñoo xam ni yow la France seen présence fii buñ leen buñ la laajoon tey lan mooy seen liggéey fii yow est ce que man nga koo xam kan moo ko mën a répondre kan moo mën a répondre ci loolu. seen i intérêt la kay di tax ñu gën a jege. Eh, jege eh, seen ay intérêt yi nga xamante nii tey ñoom lañu am fii en Afrique bu jóg bu bu nee bëreet rek dañuy jóg ah, egg fa. te du man j'ai le tableau man. am naa tableau Sénégal la ñuy jógee dem fa directement. alors xam nga. cest à seen seen alal la ñuy sàmm parce que tamit investir nañu fii il ñu am seen présence ci côté. Euh, armée ñun ñun dee Sénégalais ñun awuñu Sénégalais yu investir foofu la ca France. Mm-hmm. est-ce que ñun tax na suñu armée dem France pour sàmm suñu suñu alal ñu. alors loolu déjà rek c'est un problème. léegi France yow ñu ngi wax yenn yi pare guñu nga bëgg ci doole loo xam ne xam nga France nag dafa nekk di siisu. France dafa nekk di siisu nii de. Mhm. non day siisu day siisu. fi mu nii dafa nekk di siisu bu baax. bu baax léegi nag li ñu naan li Macky Sall doon wax wax ji mi ngi soog am am njëriñ nag France fi mu nii sa yaay aay. mais est-ce que ma est-ce que gis nga li ñu ko fi moom mu dem France ko fi bëgg bàyyi nii. loolu loolu ñoom la. loolu ñoom la rek gis nga li ñu ko fi bëgg bàyyi nii. mooy que ni hmm. France nee nañ la France ba nga wuyu ñu ni la ah. la woon woon ne de waaye am na loo fi mën a dese ba tey gis nga bu ko jeddee waaw sa yaay aay e. te bu yàkkee may la xooñ boo lankee mu may la dërëm mhm. boo lankee nag ay yat moo ci mujjee topp rek dumale rek nga dem tëddi nelaw ah. tout court moo tax France il faut que nag mu commencer déjà respecter euh, tey les Sénégalais parce que moom fi mu ne nii day bañ bañ rek mais xam na ni rupture am na xam na ni mhm. changement am na euh, ci doxale ñi nga xam ne ñoo fi amoon depuis 1960 ba léegi moo tax boobu léegi ñi ngi xataraayu gis la fois passée bi <laughs> Ousmane Sonko <laughs> RFI def urgent la ñuy def mhm. <laughs> temps yi temps man des fois dañ may dañuy day sa benn anti stress boo xam ni parce que man dama bëgg France muy mer uh-huh. France muy mer man ci lay kontaan quoi man fii maa gis français yi di xataraa yi di mer rek après man damay bëgg xam ne ngay kontaan euh, voilà xam nga ñu ngi si yoon baax euh, merci beaucoup damay fier ci uh-huh. sama dëkk fier ci nekk Sénégal mais je suis fier ci <laughs> gouvernement bi nga xam ne uh-huh. moo fi ne mais su ma gisee le contraire français yi commencé di kontaan c'est ma fausse non là moom euh, bu yeboo ñu commencé découragé parce que français moom intérêt rek surtout l'état l'état état bi mhm. ñoom seen ay intérêt kese kese kese <laughs> moom moo leen mën a bàyyi fu ñu fu ñu mën a nekk ca loolu état yëpp la moo tax nous aussi suñu état bi euh, ñoom dañu war a euh, taxaw ci seen intérêt askan te jàpp naa ne ñii fi nekk nii ñu ngi ci tànk yooyu noonu moo tax la France euh, daal na xoolaat toogaayam taxawaayam balaa muy gën a ñaaw te instant mhm. bi mi ngi ñaaw te eh, bu gënee continuer nii day gën a ñaaw rek. parce que mhm. jeunesse bi ma gis nii du ñu dellu ginnaaw yota eh, ci décision bi nga xam ne bëgg nañ ko mooy téye seen réew moomal ko seen bopp. moomal ko seen ah, bopp waaye leneen li nga xamante ni tamit jafe-jafe la Ousmane Sonko wax na ci ah, bi ñu doon amal ah, benn maanaam conseil interministériel fële ci Diamniadio jëm ci wàllum njàng mi eh, muy maanaam salaire yi nga xamante ni Macky Sall yokku na ko laata muy dem parce que jàpp na ni fi mu ne nii moom. Euh, indi na ay jafe-jafe ci wàllum ci ci ci budget bi ah, parce que salaire yi ni ñu koy euh, yokkee ci fonction euh, publique bi pour ñu mën a maanaam defar benn budget boo xam ne si ni tey Sénégal dina ci mën a tënku pour mën a doxal ay activité lépp li nga xamante ni moom moo di lu état war a def parce que budget tamit prévision la prévision la donc salaire yi jàpp na ni war nañ ko mën maanaam raisonner waat ko indiwaat ko ba nga xamante ni tey eh, dina yenu maanaa dina oyof ci po ci poosu état bi parce que Macky Sall waxoon na ko ah, avant muy avant muy dem parce que ne woon na salaire yi ñuy fay eh, daanaka eh, ay milliards yu bëri la plus de quatre-vingts milliards ñu koy fay ci ci ci ay salaire jóge ci gafak ak réew mi loolee ah, bu ñu ko yokkee tamit dina indi ay jafe-jafe noonu la ko Ousmane ko waxee ci conseil interministériel bi ñu doon def jëm ci wàllum éducation jàpp nga ni tey dina yomb dinañu dindi slëf ci euh, salaire wu fonction ñu nekk ci fonction publique bi. ndax euh, salaire moom daa xaw a sax ci. xaalis daa xaw sax ci ci xol. ndax jàpp nga ni <laughs> dinañ ko dina yomb pour ñu ñu ñu mën a coppat si coppati si as lëf xam nga xam nga fi mu ne nii moo tax président Macky Sall vraiment. man je peux pas le comprendre quoi. parce que mm-hmm. mënoo xam loolu. boo ko daan wax sax da ngay gàññi des mm-hmm. <laughs> bàyyi bu bëgg dem nag bëgg si indi ay. ay ñi ñi war a ñëw naan leen. salaire yi rek. teg nangami milliards la wax sax da ngay gañ préparé wu naan dem nag bëgg fi bëgg fi hmm. ay problèmes yoo xam ne moo tax man bon ci benn côté parce que yokku salaire ma Mahfouz dafa am dafa am lu mu laaj am aussi lu mu war a àndal am lu mu war a làmboo hmm. parce que man euh, awma contre ma ci ñenn ñi ñu yokk li nga xam ne moo di seen salaire mais am na ci ñoo xam ne Cheikh Mahfouz vraiment déjà lañ leen di fay sax mérito wuñ ko ba tax ba pare ñu bëgg leen a yokkal seen salaire xam nga koo xam ne yow li ñu lay fay mérité woo ko. Hmm. kooku bu ñu lay yokkalee loolu lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a càmbaraat la. Hmm. xam nga bu ñu nee bu Ousmane Sonko la premier ministre ne nañu xoolaat yenn salaire bon ñu ci bare bare mën nañ jàpp ni parce que salaire fii ci Sénégal moom am na ci salaire yoo xam ne sax mos boo ko yokkul. boo ko wàññi am na ci salaire yoo xam ne boo ko yokkul waroo ko wàññi. Ah, ak dundu cher gi ñuy wax naan dañu war a yokk dañu war parce que pour pour pour augmenter le le pouvoir d'achat. <laughs> mais ah, ah, am na ci ñoo xam ne a yëg dundu bu cher bi am na ñoo xam ne aussi seen i salaire seen i salaire boo ko wàññiwul waroo ko woon a yokk Mm-hmm. loolu mooy réalité bi moo tax euh, loolu pour man euh, comme ni ko ni ko daf ko annoncé ni mu waxee te loolu ñoom euh, dafa laaj benn benn étude boo xam ni dañ ko ci dañ ko ci def Cheikh Mahfouz parce que jàpp naa ni aussi tamit mënuñu jël ay milliards yoo xam ni dañu koy jël di ko jox yenn ci ay nit yoo xam ne amuluñ njariñ amuluñ benn njariñ état bi wala seen njariñ ci état bi bëriwul nga xam ni ñoom lañ leen di jox ñoom xam nañu en âme et conscience que ni wuñ ko te xam naa ne gis loolu bis bu ñu ci jëmee Cheikh Mahfouz mm-hmm. parce que dañ nga ciy gis scandale yoo xam ni déjà am na ci ay ay des des non des célébrités des personnalités yoo xamante ni si moom ci yenn ci ay ministères. Hmm. ñi nga fay fayee ko salaire u cadre te mosuñu faa xëy. am na am na directeur am na directeur bu ñu génnee démb rek. bu bu doon fay ko ñaari salaire <laughs> loolu nag man fu ma loolu moo ci loolu moo ci boo xam ne ni amoon na ko amoon muy nekk DG. <laughs> merci beaucoup waaw loolu moo ci bonne nouvelle bi. waaw bu nee bu ñu annoncé léegi léegi salaire yi sax ñenn ñi li ñu leen fay dafa ëpp hmm. maanaam. dana feeñal ba feeñalaale loo xamante ni si ni sax sénégal yi ñoom xaaruñu ko woon te xalaatuñu ko woon. Mm. dèjà am na ci koo xam ne dèjà comment génne woon turam. ci mm. ministère sàngam moo xam ne salaire u la fay fayeeku te mm. mosu faa xëy. Mm-hmm. ci beneen barab la nekk di fa liggéey. c'est parce que xëy na mi ngi doon xalamal ñeene ñu jël ko jox ko salaire cadre foo xam ne mm-hmm. Cheikh Mahfouz <laughs> maanaam des salaires fictifs yoo xam ne yow mm-hmm. ña fay liggéeye ña ñañ ña fay fayeeku xaalis bi weex tàll ñoom mosuñu faa liggéeye pour man loolu Cheikh Mahfous euh, jàpp naa ni euh, ñoom bi ñu ci defee liggéey bi ñu parce que nag ay milliards yoo xam ne Cheikh Mahfous mën na dem ci hôpitaux yi mën a créer des des écoles euh, mën a créer de la fois passée conseil ministre conseil interministériel maa gis docteur docteur Abdourahmane Diouf bu wax conditions yi ñuy yi ñuy organiser bac fii ci réewu Sénégal ak personnel nombre de personnes yi ngay organiser. Mhm. Cheikh Mahfous yow tu te poses la question mais ñun mais ñun Sénégal vraiment. ñun milliards yi ñu naan dañ koy dekkee si des fois di ko dugal ci yenn lieux yi fan lay jaar. Mhm. ak anam yi ñu koy organiser mu ñëw ci saal yi nga xam ni fa lañ koy xam nga booy xool condition yooyu yëpp ci loo xam ni Cheikh Mahfous jàng bi nga xam ni nee nañu l'éducation est la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde comme ni ko mhm. Nelson Mandela waxee loolu nga xam ni tey bokk na ci bànqaas yi waroon a gën a fulaal bu mbirum santé jàllee mhm. ni ñu ko ni ñu ko ñàkkale faar yi ci côté boobu noonu da naan tey Ousmane Sonko lii mu annoncé nii pour man dama ko ci encouragé mu dem ci euh, au fonds comme ni mu ko annoncé ci yeneen man day wax dañ wàññi salaire wàññi yenn salaire yi ah. waaw gëstu yeneen gëstu itam salaire fictif yi nga xam ni waaw salaire DG seen salaire yi bari na. merci beaucoup yu ñu waaye ñeneen ñi nekk ci suuf nag nañ leen bàyyi nag ñi nga xamante ni surtout euh, salaire yi yemamaay lañ am. non ñooñu kenn waxuñu. waaw ah, ah, ñooñu moom bu leen yokkul enseignants yi tamit xam naa ne ko laal ku laal seen salaire yi dinañ dinañ yuuxu. buñ bëggee seen xel mën naa dara ma ki defal ne leen ba mu baax. waaye dañu xam nga eh, Ousmane ah. Ousmane Sonko xam na ñi muy waxal de. ñi ñooñu itam xam nañu ne Ousmane Sonko ñoom lay waxal. Mm-hmm. parce que c'est uniquement des décisions politiques politique ah. di caser sa ay militants rek bëgg leen a euh, yenn fonds politique yi pour que ñu mën a dem ci seen base Cheikh Mahfouz di di di def yenn activités yi. Mm-hmm. te pour man loolu euh, jekkul jaaduwul euh, ci réew mel ne Sénégal ak ni mu ni mu ndóole nii. Mm-hmm. moo tax pour man loolu tey Ousmane Sonko ak ñi mu ci àndal dañu ciy war a dem yi ci ba yoo xam tey le premier ministre Ousmane Sonko mi ngi koy annoncé. pour man ay décision yoo xam ne yu Sénégalais doon xaar la aussi man lu may yu may rafetlu la léegi nag nañu dem ci yëf yi daal concrétiser indi tegal sénégalais ci table yi su ko defee ñu jàll ci leneen man en tout cas ci côté boobu laa leen di xaare mais euh, wàññi salaire yi moom ñenn ñi sermafos bu ñu ko déggee daañ tiit mais pour man dañ dalal seen xel ñun lii moom dañuy dalal seen xel parce que si n'est pas concerné. bu ñu yokkul moom bu ñu wàññi. <laughs> merci beaucoup ah, du ñu wàññi mais affaire wu. gars yi surtout ak ah. mais affaire sax du du. gars yi mais affaire salaire yi nag man je pense il faut que régime bi fi nekk nii euh, maanaam xoolaat ko bu baax a baax ñu defaat ci euh, benn audit. Euh, pour xool loolu la annoncé cest à ko bu baax a baax xool ak maanaam ñi nga xamante ni ñi nga fayeku te liggéey am na ñi ah ngi ci ñi ngi fayeku nemmeeku te ci ay ministère wala ci ay agence wala ci ay direction te liggéey yu ñu am na ñoo xam ne si nii peut-être que fa ñu nekkoon am na ñu voyage am ñoo surtout euh, ci euh, ci ci éducation enseignement bi am na ñoo xam ne si nii tey ay ay professeur la ñu woon voyagé nañu ñu ngi am na ñuy fayeeku seen salaire. am ñoo xam ne am na ñoo xam ne si nii gaañu nañu am ñoom dee nañu mais ñu ngi continuer di seen salaire di. deux ans la génn réew bi deux ans te deux ans yëpp mi ngi doon fayee ko mi ngi doon salaire am amul benn service bu mu rendre état du Sénégal. ba pare di continuer di fayeeku li nga xam ne moom moo di salaire am. et puis amuñu amuñu. dañu war a def benn système de peaufinage boo xam ni sax maanaam dañu war a peaufiner maanaam dañu war a segg segg gu. ah oui il le faut euh, ci ci côté googu noonu. parce que mm. am na ci ay milliards yoo xam ne sax ma fës mën nañu ko euh, récupérer ci côté boobu noonu ci secteur boobu. Mm. Euh, pour pour pour pour pour mu dugg ci li nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñooy askan. ñooy askan bi Macky Sall bi nga doon États-Unis de barki démb ah, gis nga photo bi. ak doom ji. ak Marème Faye Sall doom ji dafa doon dañ dañ ko doon euh, dafa doon am xam nu ñu koy waxati. gisuma gisuma dañ ko doon jox diplôme am. gisuma fële ci ci ci ab université. Ah. fële ci États-Unis Ibrahima Sall. waaw graduation. gisuma gisuma gisuma. waaw ah, gisuma photo bi waaw def naa ko ci def naa ko ci kii bi def naa ko ah, ci ci euh, ci signature bi de. gisuma fa gisuma photo bi ah bon. <laughs> Ibrahima ah, gradué nañ ko de. <laughs> waaw gis nga ñoom <laughs> seen doom moom. seen doom moom université bu mag sax la jàngee kay <laughs> mag. ci ci xaalisu ci xaalisu askan bi ku ci xaalisu askan bi kese doomu nag léegi ñun suñu ay doom xam nga lii moo tax duñu mës a respecter l'école mais parce que ñoom seen doom bu xat bi lay na ñuy yanu ñoom Europe ñu jàng léegi nag yow ñun euh, suñu doom ak ñun ñi nga xam ne ñoom ñooy ñun suñu loxo joru suñu ginnaaw ñooy jàng ci école publique bi école française bi mm-hmm. léegi ñun moom ñooy dund dans des conditions précaires yoo xam ne mm-hmm. euh, ñoom duñu ko bu euh, enseignants yi di grève professeurs yi duñu leen sax lijjanti mm-hmm. xoolal année yii passé grève bi ni mu metti woon ni mu tare woon ah, am na ci am na ci année yoo xam ne Cheikh Mahfouz ah. élèves yi étudiants yi yëpp yëpp jëm amuñu benn niveau parce que jànguñu dara. Mm. yàlla xam na ko teewul dañu maintenir examen yi. Mm. forcer élèves yi ñu def seen ay examen xoolal UCAD gi ñaata weer la ñu ko tëj. tijji nañ ko salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ni kaay la def seen examen xam nga loolu tamit mënta ànd ak benn niveau bi Cheikh Mahfouz nañu wante mm. dëgg moo tax euh, pour man. Euh, tey lii nii bon sénégalais d'ailleurs xam nañ ci xam nañ ci lu bare bare que ni ñoom euh, système boobu lañu daan doxali doomi ministre rek DG président yi ci bare bari amu ci kenn koo xam ne sa doom fii lay jàngi euh, gis nga Ousmane Sonko ci événement yi moom mm. gis nañ que ni doomam fii lay jànge boo waroon a def bac bi ñu leen bari gis nañu doomam dafa dafa échoué bon bon am na yoo xam ne duñu duñu ci dugg mm. <laughs> <laughs> yoo xam ni duñ ci duñu mais lii encore une fois dafay wane mais tey ji doomu président Macky Sall bi benn mooy est-ce dina fier ci euh, dellu si Sénégal ak diplôme boobu nga xam ni am na ko ak yi fi. pourquoi pas bon xam nga li fi jot a jaar. tey papam daf fi def benn bilan boo xam ne Cheikh Mahfous. Mm-hmm. man jàpp naa ne ñoom li doon nekk seen ndam. tey un président de la République mooy nekk ndamam. Mm. nga am sa doom yow parce que dañu la dénk. président Macky Sall ba mu fi ñëw dafa fekk ay rëq-rëq ci njàng meek njàngale mi ah oui Sénégal ay fal ko ngir mu régler loolu xam nga la moo ne waroon nekk fierté am mm-hmm. mu ñëw taxaw ci loolu ba ay doomam jànge fii amee fii ay diplôme ba xam ni yeneen i réew dañuy fier ci ñëw ci jàng ci réewu Sénégal mm-hmm. mais tey moom bu fieree ci diplôme bi nga xam ne doomu am na ko fële ci États-Unis c'est parce que mais fii des na lu bari fii am na ñoo xam ne si nii tey waroon nañu am diplôme amuñu ko c'est parce que dañu tëjul université alors moment bi ñu tëjee moment bi ñu tëjee fii nii. doomam mi ngi jàng état mi ngi jàng ci université mi jàng ba tey ñu war ko jox hmm. diplôme. Hmm. ci boobu la jamono yeneen i doomi Sénégal am droit bi doomam waroon na mën am seen diplôme daaw. am droit bi doomam am. ñu xañ leen ko xañ leen ko. Hmm. am na ci ñoo xam ne ma fos ca lañ nar a jaaree cartouché. parce que xëy na reprendre jëloon nañu reprendre benn année. conditions yi. ci condition yi nga xam ni. ñu ngi koy dundee. tëj campus pédagogique. tëj campus social. étudiant bi bu dikkee fan lay dal fan la war a jànge ñii li ñu causé ci ay toor dafa bari de Cheikh Mahfouz mhm. li ñu teg Sénégalais yi métti na métti yoo xam ne boo ko doon wax tey du tey bari nañ ñu bare bari ñoo xam ne Cheikh Mahfouz tey waroon nañ mën a continuer seen njàng am avenir mhm. seen njàng arrêté na euh, ci ñetti at yi ñu weesu nga xam ni mm. euh, tey euh, nguur gi fi nekkoon seetaan nañu en tout cas njàng mu kaw muy université yi seetaan goo xamante ni si ni jéggi na jéggi woon na doy moo tax lii ma gëm ni moo tax ma ni man gëm naa ni vraiment image bi ñoom bu ñu ci affiché am ci fierté am ci mbégte mm. c'est parce que non am na lu des si ñoom quoi des na waaw des na ko quoi des na parce que ñoom bu ñu xalaatee doomu jàmbur yi ñu sacrifié avant ñuy dem mhm. ñu waroon jot seen ay diplôme comme ñoom comme moom doom ni ñu ko jote mhm. ñoom ñu xañ leen ko ba pare dem di di glorifié wu di am fierté ci seen doom bu jot diplôme ñu waroon def examen daaw sax ba léegi defuñu examen année scolaire daaw. mais sama boobu am na ñoo xam ni def nañ trois ans cité ba tey. presque seen première année seen première sax mënaguñ ko jeexal def nañ trois ans si seen première ba tey mënaguñ ko jeexal. c'est compliqué loolu te sa ay parents boo leen ko am na ñoo xam ne sax seen ay parents mënuñu ko comprendre. Mhm. parce que yow boo déjà boo defee trois ans cité. ñu jàpp ne war nga mën a am sa licence te ba tey sa première année mënoo ko jeexal. Mhm. deuxième deuxième semestre bi mais kooku kooku yow ñaata année nga fas yéene def. nga mm. fas yéene mm. def mm. loolu lépp kan moo leen ko teg moo tax ma jàpp ni vraiment wan euh, photo bi euh, <laughs> ndoo ko sax boo ko gisul. doy doy na waar doy doy na waar yow la intéressé doo xool. <laughs> ndoo ko ko gisul. <laughs> Euh, dañuy tëjee ak euh, Iran nga xamante ni tey yeewoon nañ ak naqar bu tiis ah. depuis démb ba léegi ak seen président bi nga xamante ni eh, dafa def euh, accident ci bi naaw bu mu demoon di inauguré génn benn pont benn barrage bi mu wàññi ko ci la daal di def accident parce que condition météorologique yi aussi nekku fa woon dafa xawoon na am lu ñuy wax brouillard taw bi mu doon taw foofu noonu neige mu jën fa déjà Euh, conditions yooyu tax ba euh, ñu daal di defub euh, crash mu mu mu mujjee ñàkk bakkanam moom ak son ministre des affaires étrangères ak équipe bi nga xamante si ñoom dañu àndaloon ñoom ñëpp ñàkk seen bakkan xaw nañu am jël ay jaf am ay jafe-jafe sax lata ñuy gis appareil bi ndax condition météorologique yi nga xamante ni am na foofu ca Iran ban commentaire nga ciy defon ci le décès